amee ci lay soog a dem wuti ji ay solution mm-hmm. euh, pour xool ñan ñoo ko takkaloon ñu mën a arranger waat sëy bi euh, Fall Ndiaga gis man fu ma njëkk a ñàkk d'accord mooy tey xale bu góor bi moom nan la mën a bàyyee sax soxnaam di génn à pareille heure ay une heure du matin kooku xiif moom war a dem jëndali ko muy bàyyi xale bu jigéen bi di dem ba ay une heure du matin deux heures du matin euh, li may wax ce matin jigéen ñi dañoo xaw a xiif comprendre c'est-à-dire que boo leen ne hamburger rek ñun la bàyyil ma dem <laughs> comprendre. non ñenn que lu mu tàmm la ko ñenn ci jigéen ñenn ci jigéen la. moom damay tout le man xam naa am na yoo xam ne du ma génn moom. mi ngi mi ngi tëddal dara am problème ah, rek. Euh, problème mooy euh, gis nga dafa am yoo xam ne. Mhm. Euh, problème. bu ko tàmmal nit. dafa am heure yoo xam ne yow ginnaaw yow mën nga mën ngaa dem. Mhm. sa comprendre nga euh, waroon ngaa mën a jaar ci dibiteri bi jënd ndawal àndaale ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir kër gi ñaareel bi tamit moom mooy heure ba mu dem taxaw lu tax mm-hmm. ki la jox 5000 ni la demal nga jëndi nga jëndi mm-hmm. looy ñaan 100 francs yaa ngi yàq sa deru jëkkër mais est-ce que lii luusul aussi li mu expliqué. c'est-à-dire dafa am ay la lay bàyyeel waaw. ñaari xam nga problème ah. ma la wax ci njëlbeen nga rek. bëri na gis nga ñun ñii ñu ñuy boo amul xel rek mën ngaa sot. Mhm. mais boo ko déglu dégluwaat ko xam ni waxuñu la lépp. Mhm. est-ce que comprendre nga. Mhm. surtout nag ku ñu naan la boroom xaalis la gis nga boo ko tegul. dañ naan woo woona jëkkër ji ba jëkkër ji moo ko moo ko bolekeloo vidéo bi wala moo ko bolekeloo audio bi parce que nee na jëkkëram borom xaalis la jàngalekatu alxuraan la. mais day takk takk suuf. Hmm. bu njëkk dañ daan wax ni takk euh, takk suuf dafa dafa garaaw. ñu si daan ñu si daan ñu si daan euh, joxañ baaraamu tuuma euh, góor ñi. Hmm. mais damaa seetlu ni képp kuy takk takk suuf. Hmm. da ngaa yor xaalis. képp ku koy def. képp kuy def takku suuf. Mm-hmm. borom tur nga war a borom xaalis nga. dëgg la duñ ko nangul ko amul kon jigéen ñi am nañ ci part de responsabilité. Mm-hmm. parce que ñoom ñuy nangu ñu takk parce que ku ñu takk takk suuf rek. am na lu tax ñu xam nga li xam nga ni dañ laa takk takk. am nga ci avantage am nga ci avantage am nga ci intérêt. merci te ñi ñu takk takk suuf yëpp après divorce la ñuy dénoncé. Mm-hmm. lu ne ñu wax ko lu ne ñu wax ko mais takk suuf li ci gën a graaw rek moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy euh, moom mooy mooy conséquence bi toujours. ñi koy nàmp moom mooy. mën nga wax ma jël njaboot gi mooy jëkkër gi day am. doom yu bari yow ñu takk la takk suuf yow sa doom du xam ay doomu bàyyi mukk ci àdduna. xam nga lu ñuy def ëllëg bu fi Fall Ndiaga jugee boo moytu sax ñu jiiñ ni Fall Ndiaga dafa ëmbaloon doom jooju doomu ëmbal la doom jooju du donn doom jooju nangam ak nangam nangam gis nañ ci ay cas yu baree baree bari jigéen ñoo war a am fu lay fayda mais toujours seen intérêt la ñuy jiital ki leen di def takk suuf appartement la ñuy wutal ki leen takk suuf mën na leen may oto ki leen di takk suuf mën na mën naa féete ci benn côté ci wàllu woowu bala ñu koo jéebaane nag moom mooy àdduna euh, jam leen wala problème am ñu soog ko jéebaane mais ñaareel bi tamit mm-hmm. mooy duñu wax lii lépp te waxuñu ni mm-hmm. dóor sa jabar moom ànduñu ci c'est-à-dire que dóor sa jabar moom ànduñu ci te kenn du ko kenn du ci ànd ba ilaa yomi din mais histoire la boo xam ni ku luus la waxuñu ñu dëgg isa comprendre nga ba jëkkër ji ba bi may bëgg a dugg maa ngi koy woo mais téléphone am day sonné rek parce que cas yu mel nii duñ ko jël te laajuñu beneen partie bi mais téléphone day sonné mais souvent nga seetal sa bopp parce que boo bloqué audio bi rek ñu ne dem parce que bi ñuy ñëw da ngay dégg parfois ñu ñëw si yow dem naa ci moom jàllale wu ko dañ koo neexal dem nañu si diw jàllale wuñ ko dañ koo neexal dem nañu si diw c'est-à-dire que ni ñuy yàqee deruñ sa mbokk la ñuy yàqee mujj sa der mais daal duñu ko duñu duñu ànd ci dóor yi waaye ñaare bi mooy jigéen ñi yi def tatak suuf ñoom tamit 14 jabar c'est-à-dire que dafa bëri il se comprend mais borom alal la ko man wala borom tur mhm. faal njega du dem rek ku mu takk ñu la ay woon na takk la mhm. tey ji nii su ma la doon ñaan si di nga ni ma ànd say mbokk mais tey ji nii koo yebal moom moo yebal ko sama waay ji yebal ko keneen ñetti nit bu ñu ñëwee am na lu ñu yaakaar ci yow. dëgg la. te gars yi tamit ñu takk takk suut dóor kat lañu. dañ naan noo takk gi bëgguma mu siiw parce que damay bañ ko ma revue de presse. fa mm-hmm. ñu koy jaajafal bu baax a baax moom moomu. 14 dafa bëri 5 sax baax na 5 à la rigueur en afi ah. 5 pour qui pour toi wala. non 5 nga am 5 jabar sax baax na mais 14 dafa bëri. dafa bëri de <laughs> cinq baax na. waaw ñeent ak takko baax na mais si quatorze jours bi xam nga. bu baax la cinq chiffre bu baax la. bu baax la kay. dëgg la ñëwal ma ci happy family bi. <laughs> donc happy euh, family ngeen nii ah donc Gambie comme ni ma leen ko waxee woon sànq am na ci li nga xamante ni mooy gel de douche à base de à base de à base de menthe ak fruits méditerranéens am nañ li nga xamante ni aussi mooy eau de Cologne xeeñ neex loolu la def à base de lavande citron ak vétiver. Mm. mais les décors yaa ngi fi dafay hydrater hydrocarbures.